gars yi ñu ngi leen leen jaar yéen ñi suivre Ramasport ñu war a ñëween ci benn vidéo mën a wax ci président CAF président FIFA yi nga xamante ne bii na ñoom ñëpp mën nañoo d'accord nañ ci li nga xam ne muy penalty Sadio bi euh, bu Ismaïla Sarr bi malgré arbitre wu ko Euh, te du ñoom dong képp koo xam ne yaa ngi fiir fool d'accord nga ci ndax xam nga lii peinture ndax yow war a dajee dama leen wax ne ñett mooy dajee ci site peinture maanaam bu ci benn daje rek peinture la muy benn nga marqué marquage derrière peinture la bu ñaareel ba boo dóoree tànk waa ji moom dal peinture la bu ñetteel ba marquage derrière boo ñëwee zone bi nga laal ko ci marquage d'arrêt ba mu ñàkk penalty te ñett yooyu yëpp boo xoolee dafa dajee ci occasion Ismaïla am na nag lii lii jàll jàll na waaye dañu ko wax pour ngeen xam lan mooy am ci site contact penalty doog am mais xëy na kaaf dañ jël après seen matuwaay ci at bii di benn dañ ko almaan wala ñu suspendre ko wala ñu aj ko wala ñu yàq ay kayitam mais daal dana am lu ci kaaf di dool boo kaaf deful nag kon dañuy gëm ne kaaf moo may pouvoir. bép arbitre bo xamné ne yaa arbitre fi ci Afrique nga def lu neex ñun amam par lo lañu gëm te su boobaa loolu lañu wax ndax timit football dafa riche kon il faut ñu tek football ci yoon rawati ki ñana muy ne al hakim al hakim huwa alladi yunasimul mulaab arbitre mooy régler